salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu eh, mbooloo mu tedd mi soxna si nee na mi ngi leen di nuyu nee na jataay bi xat na lool nii waaye mbooloo mi nga xam ne ñoo ànd ak Adja Leena ànd ak mbooloo mi nga xam ne ñoo bàyyi ko présidence ak ñi bàyyi ko ci ambassade amerig bi fekk fi mbooloom soxna Aram ak soxna Xadi Njaay Fall mi nee na da ngeen fee fekk ay bokkam te bis bii di bisam di bisub doomi Serigne Touba mu mel ne nit ku ne am nga bis boo xam ne gànjar ga nga gën a baaxle moom nga war a génne ngir sante ko Serigne Touba loolu moo tax bi ngeen ñëwee. defoon nañ sax jotaay mu présenté leen njabootu sëñ Touba gi ngeen fekkanteel gépp waaye soxna ki ne moom Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne dangeen ko fee fekk ak soxna Khady Belal moom Cheikh Abdoul Ahad ak madame Mbacke mi nga xam ne ab cërëma tey jii soxna may mu naa nga ca këram sëriñ Abdoul Ahad moom Cheikh Mamadou Fadal yor ko soxna maam Khary moom Cheikh Mamadou Mourtada njabootu Cheikh Abdoul Khadir gi fi ne nee na moo tax mu ne nañ leen woowaat ngeen fekk fi soxna Kine fekk fi bokk yooyu mu jot jotlewaat ay kàddu ci seen kanam lii muy def nee na nuru na sax saayir waaye lim ci jublu rek wan àdduna bi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi bàyyi xel ci net bi wala ñu leen ñu seetaan ci télévision yi na leen kuy dégg sëñ Touba lii mooy mbooloom ku xamut sëñ Touba xam ko ndax jamono daa toll foo xam ne kenn ku ne yaa ngay génne la nga am donte jëmut ci yàlla it yaa ngi ciy propagande àdduna rawatinaa nag bu sëñ tubaa amee mbooloo mu tedde nii ñuy dégg seen i tur ci seen liggéey yépp di jeexe ci bis sëñ tubaa yi ndax xam nañ ne guddi laylatul xadar jullit yépp maase ànd di ko màggal ci àdduna bi waaye nag bu génnee mbooloom sëriñ tubaa mii ñu di ay jigéen ñu wan leen ne njabootu sëñ tubaa gu jigéen gi ne nii la ñuy dundale laylatul xadar kuy déggaat leneen lu bokkut ak loola da nga xam ne la nga dégg bokkut ak li nga gis nee na moo tax mu ne nañ leen waat fii kon soxna ki ne soxna si nee na mbooloo mii nga gis day ajaa leen jiite leen waxoon na ko dellu ko wax di ko waxaat dañuy ñoo xam ne soxna may daa feeñal ci ñoom baatin lan la feeñale ci ñoom baatin mooy li soxna may feeñ feeñale ci ñoom baatin mooy ba ñuy gën a doon ay ndaw nekk ci daaray université di jàng ñenn ñi nekk France di jàng ñu leen di tuddee ay étudiant ay téere yi xam-xam yu bari yu wuute nekk ca fañ doon jànge ay boroomi xam-xam yu am xalaat yu xóot ci àdduna defar livre yooya mën a yàq lool xelum doomu aadama mën a njëkkanteeg ruug doomu aadama ba def ci leneen lu bëgg tëg li ci yàlla bëggoon a def téere yooye yépp ñu jàng ko soxna may na ñii de ay jullit lañ ay doomi jullit lañ te su ma leen bàyyeek seen njàng mi mën na leen a sànq ba génn leen ci lislaam wala buñ dee jullit ak seenu jullit duutu wér soxna may ne naa dugg foofa nag liggéeyal fa sëñ tubaa dugg ca daara yu mag yooyu fekk leen fa def ci seen xol yi bëgg sëñ tubaa te loolu ba mu koy def nee moo mook sa wayjur wa ñoo ko àndoon muy Cheikh Abdoul Ahad ndax sëriñ Abdoul Ahad suñ borom daf ko tawfeexal tawfeex ji ko yàlla tawfeexale mu maaseeg soxna may Maymuna ku ne xam na ne jamono yi 1972 jàpp 1973 ba 74 yëngal nañ àdduna yëngal goo xam ne riirum murit demoon na fa xam ne soxna may ak sëñ Abdoulaye ko fa yóbbu soxna may di liggéeyal yàlla ci jigéen ñi sëñ Abdoulaye di liggéeyal yàlla ci góor ñi te booba Sénégal yëngu na àdduna bi yëngu na waaye ci jamono yooju la sox soxna Maymuna dugg université njëkkanteeg ñii nag daat na ñoom de danaa danaa danaa danaa xeexal saytaane ci ñoom ba def leen ay murit saadix waaye bu ma leen di defi saadix itam du ma leen bàyyi ci noonu danaa leen nàmpatal ci sëñ tubaa ba dootuñu am genn bëgg wala yenn xalaat lu weesu liggéeyal sëñ tubaa waaye ñoom loola dem nañ ba biñ doonee mag lañ koy xam man naa am ca seenu ndaw gis nañ soxna may muy doomi sëñ Tuubaa àdduna àdduna dëgmal na ko am nam xel bari na teraanga ñu bëgg ko def ko muy seen way wayjur waaye baatin bi mu doon liggéey ci ñoom nag bi ñu demee ba doon mag lañ ko soog a xam bi ñu demee ba ñoom ñëpp ñu de ay kaadar kenn ku ci nekk ne fi barab di liggéey àdduna fekk la fa nga wattandiku lool ci la ngay liggéeyee ndax àdduna fekk na leen foo xam ne seenub liggéey bu ñu doon nit ñu ñeme yàlla mën nañoo yor ay milliards waaye boo ëllëgee ñu layoo kook seen borom looloo taxoon soxna may di leen fàggu kenn ku ne bang ba nga toog mbooloo ma la fay fekk waxtu wu ne yaa ngay bàyyi xel ne man taalibab sëñ Tuubaa laa yaa ngay bàyyi xel ne soxna maye sama bàjjan war na maa moytu nangam war na may daw nangam seen bëgg gépp ñu ko sëñ Tuubaa booba nag la yàlla yëkkati sëñ Abdou Lahad muy koo xam ne miracle la ci yoonu murid xalifa Serigne tubaab bu toll ci juróom fukki at wala ñeent fukki ak juróom mënatut am suñu boroom jox koom xel jox ko kàttan yee ko ci àdduna ndax soxna Bali day faral di wax ne soxna may Maymuna de ni ko sëñ Abdou Lahad taxawoo bu ko ci sëñ Touba fayoon képp te liggéeyatu leneen mu doy mu doy waaye nag dafa munta ñàkk boo gisee mu ne na téye soxna ki ne Abdou Lahad keroog bi Serigne Touba di jógee gànnaar ñëw ceen Jolof. daa yebal maam Thierno Ibra Fati na ko sun borom may na ma taraanga joo xam ne ndab li ma koy yekk du xumaag du bënn ca taraanga la damaa bëgg nga wutali ma askan woo xam ne mosuñoo lekk riba mosuñoo dunde lu dul seenu ñaq mu dem mu dem mu dem mewndu kër ma Masata Jaxate fa la jëlee soxna Fat Jaxate ak soxna ma Jaxate soxna Fat Jaxate njëkk ci kër gi soxna soxna Marema di rakkam moo àndaale ko fi Sëriñ Tuubaa ne sama borom ñaar ñëpp la ma digal ma denc leen ci kër gii kee jur sëriñ saalihu kii taawloo Cheikh Abdoul kero bi sëñ Abdoul Ahad ganee àdduna sëñ Touba da koo fat ci ab néeg bind ko ba mu fees dell mu daal ne kii de am naa ci moom yaakaar joo xam ne ëllëg moo ma koy defal am benn bis mu woo nijaayam sëñ am satu mu ñëw mu ne ko am satu loo gën a bëgg ci àdduna ak lu ne ci sam xel sëñ am ne ko li ma gën a bëgg ci àdduna de mooy nga ñaanalal ma sëñ Abdoul Ahad mii mu ne ko am satu lu yàlla noppi la suñuy bind ko sant jaxate rek jëmm a tax lu yàlla noppi la sëñ Abdou Lahad suñ borom bàyyi ko faay jox ko wayjur muy soxna Mariama jaxate mu dund fanweeri at ak ñett tolloole ko ak sëñ soxna jaara sëñ Touba wax na ne kero bi soxna Mariama jaxate génnee àdduna te sëñ tubaa génn taxawul ko boppam noppi ne nañ ma ko yóbbul ci wetu soxna Aminta Lo ñu dencal ma ko fa su ëllëgee bi ma bu Mariama mi jur yonent yàlla Isaa jur te xawee ci yow mel xiyam dana xam ne mënut sama Mariama mii kooka nag sëñ Abdou yaakaar joojee sëñ Tuubaa amoon ci moom mu dem ba jamono toll foo xam ne bu sëñ Abdou Lahad ñëwutoon di xalifa sëñ Tuubaa genn wàllu mu ñëpp sawara la ñu dekkee ji ndax booba xiiwal yi bari na mbewte gi bari na ci àdduna yàqu na ci la yàlla nag indi sëñ Abdou Lahad mu maaseeg soxna Maymuna ñu redressé waat yoonu murit sëñ Abdou Lahad nit ñi di ko roy ci col di ko roy ciy wax saa yu ne salaamaaleykum ku mu fekkoon ngay dox da nga àgg suuf déglu ko ba mu daaneel fu mu jëm lu ko gën a ñor mu ne nañ dem seeti soxna may mun a gan gum am gum gën a fonk mu yóbbu la ci soxna may soxna may fekk leen foofe ngeen di dajale seenu ñaq su ngeen ko ko joxee mu waaxu ba ci sëñ mu teg ko teg ko ci loxoom léegi lañuy wax kere bi sëñ Abdou Lahad bëggee yokk jumaa ji te ñëw ci soxna may na ko sa jumaa yi bàyyi jii moom laa bëgg a defaraat ba mu mag ba mu mel ne madinatul munawara waccal bihi daariya kal madina barakatan wa kahbatal masuna sëñ tubaa moo wax ne moo ñaan yàlla na ko na nga ma barkeelal sama dëkk bii ba mu mel ne madinatul war ak màkkatal mukarama ba mu ko ko waxee ba daaneel soxna mayee njëkk a làmb téeméeri junni na ko ma tàmbalee ko kon soxna mayee ca jiitu ba liggéey ba demee bay noppi ba sëñ Abdou Lahad jënd ay marbre indi ko teg ko ci saal bi soxna may mun a la woowaat mu ñëw mu ne ko xoolal marba bee mu xool ko mu ne ko ndax rafet na mu ne ko bii de amagut ci réew mi mu ne ko moom laa bëgg a def ci sa bara bu baay bi biir ak bitti ba lu waay gisati moom lay doon soxna may yëkkatee yëkkateeti alalam jox ko ko booba seen seen daayira yi ngeen daan dajale di jox soxna may moom la leen defal ci liggéeyu jumaa ji te sëñ Tuubaa wax na ci jumaa ji loo xam ne ku yàlla dimbale saw ñàq dem ca kala ca defal saw ñàq mënatoo koo fay mooy sëñ wax ne soxna may te nga ñëw fi doon jox soxna may ci jamono jooja moom li leen soxna may faya seen seen seen teraanga ji seen toogaay bii ndax sëñ Tuubaa moo wax ne waqadi hawaïji alladina daamoo fii xidmati aajo yi nit daal àdduna ak lay am benn mu am aajo yi àdduna wala mu am aajo yi àllaaxira ñaari aajo yooyu nag sëñ Tuubaa nee li ko mën a faj mooy di ma liggéeyal waqdi hawaaij alladina daamoo fii xidmati ku may liggéeyal daal yàlla mooy faj sa aajo dee la wax ne inna alladina saarahoo fii xidmati fa lahumu diyaaru wasal jannati ñi may liggéeyal daal bu ëllëgee ca digg àjjana la ñuy dëkk waaye duñ dëgg ca wet ga ngeen daan dajale seen yëf di ko teg ci loxol soxna a mu koy teg ci loxol sëñ Ablaat mu leen koy defal ci jumaa ji sëñ Tuubaa deel wax ne wax fir li man banaw binaa ahar rafi wax fir li man amarahum bihi jami yàlla na nga jéggal képp ku mas def ci sama jumaa ji dara ku am yéene def ci dara ci defoo ko ci sax na ko jéggal ku dimbale ku ciy def dara sax na ko jéggalaale ay bàkkaaram kon diggante sëñ Abdou ak soxna Maymuna fi nu jaar ci àdduna jaadu na bu ngeen àndandoo seen daayira bi ñëw teew mu seereel ko soxna Kiné nee na mu lay xamal nag ne ñoom ay ciment lañ benn yoon lañ tooyee kero ban jaayante ak soxna May di ko liggéeyal daaw jéeg rek ajalee naa ngi ciy wax xar baax bu yéeme ndax bi leen soxna may boolee ba ñu àndandoo ba jàng ba génn ku nekk dem bitim réew yi daayira ba daa tisaaroo waaye kero bañ seenum njàng jeexee ñu war a daje si waat ngir dajale waat daayira ba daa mel ne soxna may leen doon woo par benn ba ñoom ñëpp ñu àndandoo waat guddi gi benn guddi gi rek wax nañ ci sànq ne soxna may def na lu gën a li gën a jafe ci àdduna ci histoire mënatu ko mënatu te nett lu raw loolu bi soxna baal di wax ne bi muy defee laylatul xadar daaru wahab kenn nattabliwu ne laylatul xadar yi tey jii ku ko bëggoon a yóbbu daaru wahab da nga andi fitna benn mbooloo mi xajun daaru wahab buñ fa xajee dal yu leen mën a daloo néewu fa te daaru wahab sori na waaye gis-gisub doomi sëñ Touba ci la sëñ Abdou Lahad demee ci moom ñu baree ngi naan booba feebar dafaa xew waaye booba sëñ Abdou Lahad lii la gisoon mu ñëw ne soxna may mun a demal rootali maag tànqal jox ma lu gën a jege soxna may ne ko ah tànqal jox ma dee gën a jege mu ne ko tee ngaa ñëw maag yow ñu fekk sëñ bàmba mii bu laylatul xadar ak see ñuy di ko jox muy fab dinu jox soxna may toxal laylatul xadar ja waaye yërmaande jooju sëñ Ablaat amoon moo jur lii tey ñu seq sëñ tubaa ñoom ñaar di liggéey di ko jox sëñ Ablaat di ku bëgg sëñ tubaa koo xam ne ak bëgg sëñ tubaa mel ni murit laa tableetu ko wax nañ na mag ñëw na ci moom ne ko man de li ma jaaxal mooy sag bëgg sëñ tubaa gii ëllëg daal yowmal xayaam bu kenn taxawee ci kanam sëñ tubaa ne sëñ Abdou Lahad maa ko gënoon a bëgg sëñ tubaa wala maa ko ëpp lu ma defal sëñ tubaa dana ma jaaxal mu ne ko mag moo xalaat ak man mii kenn defulu ci sëñ tubaa dara ñun ñëpp sëñ tubaa ñu dimbale kenn defalu ci sëñ tubaa dara ñun ñëpp sëñ tubaa yi gën a yéeme mooy sëñ Basiru Sarr jaamu sañ tubaa mii nga xam ne kenn mënu ko ci liggéey bi kere ba sëñ Abdou Lahad di woo sëñ Basiru Sarr na ko dama lay tànnal ab jigéen ci waa kër sëñ tubaa ñi koo xam ne boo ko amee doyal sëkk ab ab jigéen woo soxna may mun a mu ñëw mu ne ko dama lay tàn tànnal càmmiñ ci ci seexe sëñ tubaa yi boole leen ñoom ñaar soxna may ak liggéeyam ci sëñ tubaa kenn li ci gën a yéeme mooy ñaari ginaar yam toggoon jox ko sëñ fàllu sëñ fàllu na ko dana ko raw dana ko romb démb sëñ aboom sëñ fàllu day dugg si ci kër gi sëñ Basiirou saar jiitu si di indi ay ginaaram oto yi ñu sëf ginaar yi mat fukki oto ak nangam ndax ñaari junniy ginaar ak ñeent téeméer oto yi ko sëf bari nañ oto yi baare sëñ Abo mii xalifab sëñ Fallou ba munta jàll bi sa yëpp dafa daa ñëwee ñu ne ko ginaar ya sa maam ña sa baay ñaanoon moo baare sa xalifa baay ba munta dugg ci kër gi kon liggéeyub sëñ Touba noonu la liggéeyub sëñ Touba noonu la bi ci topp mooy laylatul xadar léegi ñu ngi koy waxtaan ak Cheikh Aram Kebe laylatul xadar ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko yàlla wàccee wax nañ ne alxuraan lépp yàlla bis bu tool sëñ ñu laaj ko na ko lii foo ko jëlee mu ne allamtani l xayba hatta zirtu muntabihan man yàllaa ma dindil kumpa leen lu ci nekk leeral na ma la ca ne ñuy màggal laylatul xadar mu def ci ñeent yoo xam ne ci àdduna histoire nett léegut ku ko def rawatina di jigéen moo tax parité bi nit ñi woote danoo ñëwut kër sañ tubaa bu ñëwee kër sëñ tubaa rek xam mooy lan sëñ tubaa lu ne jàngale na ko bu yàgg jenn jigéen ju taxaw taxawaayu fukki góor ak nangam yu bokkut ak yu yaakaarut sëñ tubaa kër sëñ tubaa rek nga koy fekk kër sëñ tubaa rek nga koy fekk amul kenn ko ne fii di do di seexub sëñ di seti sëñ tubaa wala ngay seexub sëñ tubaa bu muy liggéeyloo ci yoon wi te yow miy jigéen embauché woolu mat nangami góor yu topp sa ginnaaw te yaa leen ëpp diine yàlla leen di gën a ragal yàlla jigéen mën naa embauché ay góor waaye du leen gën a ragal yàlla du leen ëpp diine waaye boo ñëwee ci kër sëñ tubaa nag jigéen ñii liggéeyloo góor ñi dañ leen di gën a ragal yàlla ba noppi ëpp leen diine ku dul sëñ tubaa amoo lu mel noonu moo tax soxna Maymuna ñeent yi mu njëkk a def ci laylatul xadar ku moom defoo ko mooy laylatul xadar yàgg na lool moom ak soxna may waaye ñeent laa wax ne def na ko ci boo toppee histoire nag ba ba ngay delluwaat màkk gam wàcce woon doo gis naar bu ko def mooy ñeenti yan mooy laylatul xadar soxna may daf ko jàppe guddi daf ko jël def ko teg ko fële daat na jëmm ngi nii joo xam ne sëñ tubaa nee na dana ci liggéeyal yàlla lu ko kenn mus ta defal kon man maay sëñ tubaa mi ko war a liggéeyal lan laa koy war a defal mooy jëmm ku koy wut da koy njëkk wutal fu mu dëkk balaa doon jëmm day am fu mu dëkk am fu muy fanaan di soxna may def kërug laylatul xadar loolu monsieur su ko dégg ci àdduna ñu defe na ci lay yam mu ne nit itam boo ko wutalee kër danga koy wutal métier mu am capital mu def toolub laylatul xadar boo xam ne laylatul xadar ko moom mu ne mbayit mën nga cee sukkandiku waaye kuy bay da ngay sàmm mu wutal laylatul xadar gétt kenn nattalu ne xaru baali baali ñu ko am ñépp ci soxna may lañ ko wute ginnaaw soxna may ñu bari dañ fa daa yóbbu seeni xar ngir bëgg am xaru baali baali nagu élewaas soxna may ko njëkk a indi ci réew mi ngir lan daf daa wax naan jur gu ne nañ seet gën ñu koy daan dencal sëñ Tuubaa bu laylatul xadar ñëwee ñu def ko ci yemu ci nit juddu ñu tudde ko laylatul xadar yoonu murid rek day fekk ku nit ku tudd laylatul xadar amaatut yent yooyu soxna may ko njëkk a def ci àdduna kon kooku wàccoo na ak laylatul xadar eh, yemut ci moom bëgg sëñ tubaam sëñ Abdou dafa am menn mag mu ko mas a laaj na ko man de sa daaray kaamil ji ngay defar téere yi nga fiy def waaye damaa fekk genn xasida goo xam ne da nga cee mool ñetti junneeg nangam ma lay laaj xasida googu loo ci jublu mu ne ko xanaa bëgg ñu xam sañ tubaa mooy kan rek bëgg ñu xam sëñ tubaa mooy kan xasida googu sëñ tubaa da ciy wax li ko sun boroom may ci diggam ak boroomam sun boroom daa bind ci alxuraan ne wa yaxluqu ma la taalamun man yàlla de bind naa lu ngeen xamut waaye sëñ tubaa moo ñu nettali ne la yàlla bind te xamuñu ko mooy man la yàlla bind te xamuñu ko mooy man boo gisee àdduna dem bam àgg nit ñi bëgg a bëgg a bëgg a bëgg a bëgg bëgg jaare ci dereeti sëñ tubaa yi gis nga sëñ tubaa amut lenn lu nekk ci dereetam baa meenam lu gàkk fa yàlla amut su ngeen ànda nga di ko xool sax mu ne ci loo xam ne yow xamoo ko rombal te jàll ndax sëñ na laata may wàcc jamono yàlla moo mën a seetal askan woo bëgg ma wàcce la ci seet xeet woo bëgg ma wàcce la ca askan wu ne ak xeet wu ne nag ña ca gën laa lay booleel sëñ tubaa xool ne nit ku ñu daan néew doole te yonent yi wàcc yépp benn ñuulu ci sëñ Tuubaa wàcc ci der bu ñuul waaye lii bu doon ay naar duñ ci jot mu xool ci réew yi Sénégal Afrique gën cee néew doole mu wàcc Afrique Afrique Sénégal gën cee sori mu wàcc Sénégal Sénégal Touba ci gën a sori gën cee tàng mu wàcc Touba Touba ku fi woote woon kuru sëñ Touba kenn du la wuy si mbay mi nanguwut amutug dex amut aéroport waaw kenn du fi def commerce sëñ Touba dong nga fi mën a woote ñu wuy si ko fi sëñ Tuubaa woote fi wax fi lim fi wax ne lépp dana ma fi fekk yàlla na ko ci askan wooy wàcc mu ne ko askanu Mbàkke së yàlla na ko seetal ñan nga bëgg ñu doon say way jur mu tàmbalee ca ma aram ba ba ba li aram jur tàmbalee ci sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ba ñëw ci ay Aysa ba ñëw ci sëñ ñim jur soxna Fat Jala Taawloo Mbàkke Kajoor teg ca soxna Astu Mbàkke ca Mbàkke Kajoor ñëw Daaru Salaam am fa sëñ Mudu Musaa ak sëñ Fàllu ñëw Touba am fi sëñ Baara ak soxna Mariama Kunta di dem ci géej gi am sëñ Basiru jóge ci géej gi taawloo sëñ Abdoulahi ci yoonu géej gi teg ci sëñ Saaliwu teg ci sëñ Ablaat waaye bi liggéeyam jeexee nag ba mu wax ne malakani dunya wa oxra samadu adduna ak alaxira li ci nekk yàlla jox na ma ko zimaamu wara xasri ladallahi fi yadi lu yàlla bind mu am ak ruudi noyyi yàlla teg na ko sama loxo ci la am soxna may nga xam ne kon lépp mat na kon bu ngeen ñëwee ci guddi laylatul xadar daje fi nii soxna si ne moom de du génn ci tànt bi waaye lim leen mën a terale ginnaaw jox na leen li yàlla santaane muy nanga dogal jullit yi nanga leen màndal na nga leen jox ay foyteef nanga leen teral ci guddi gi waaye teraangay sëñ tubaa nag mooy waxtaanal leen ci sëñ tubaa ba seeni xol sedd ndax bu biir yi feesee xol yi dafa war a sedd waaw kon moo tax mu ne na leen terale ñu andi ñi fi nekk ñépp ñu teral leen ci waxtaanu sëñ Touba waaye nag mu présenté leen ay bokkam yi nga xamante ni bi ñoom rek la amul ñeneen ñi ñoom kon soxna si nee na toogaay bi metti na mu ne soxna Xadi Fall mii ak soxna Abibatu Mbay ak soxna boppam sii ak soxna Xadi Fall Tall nee na lii lépp lim ci jublu rek bëgg yéen ñépp ngeen bokk ndey ak baay xamante miinante kenn ku ci nekk xam ne guddi gi amut leneen lu dut moom bu leen mën a lim leen mën a terale mooy bégal leen ak jox leen boppam bégal leen ak jox leen boppam waaye sëñ Moustapha Tall soxna si nee na léegi la fi sëñ Idrissa Thiam jóge ak mbooleem nag ñi muy liggéeyandool ñépp romb na laylatul xadar yu bari romb na dëkk yu bari itam waaye xam ne cëram bi mu am ci sëñ tubaa moom moo ma bokk lépp moo ko fi tax a ñëw kon nag nee mi ngi koy jotal ak cant bu baax di ñaan yàlla rek guddi gii nga xam ne sëñ soxna May ma waxoon ne liggéey bu yàlla nangu de ku ko gis xam ko waaye ku xool sama liggéey bi xam ne yàlla nangu na ko nee na mi ngi ñaan li sëñ Touba waxoon ne adxaltu nafsi wa jamiha ahli fi jaybi afdalil waraasil fadli fob naa sama bopp ak li ma yaakaar lépp def leen ci biir poosub yonant bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yéen it fob na leen yéen ñëpp def leen ci biir poosub soxna Maymuna di ñaan yàlla leen yàlla defal ndimbal lépp luy seen yitte bu ngeen duggee ci kër gi yàlla na ko sëñ Tuubaa saafara xolam sedd na yéen guy soxna ki ne soxna si nee na xolam sedd na ci yow ndax yéen a bokk lépp te sa way jur wa kenn mënu koo fay sa yeblaat ba bu àdduna doon wax ci moom di bind ci moom it ba àddunay tukki mu ne su ta fay sëñ Abdu Lahat lépp mooma mu ne mu ngi leen di wax so soxna na bu mi di soxna sëriñ Abdu Lahat moom sëñ Fàllu dib cëram nag moom nee na dafa bëgg ngeen gën a jàppanteek moom bu baax euh, lu ngeen ko jàppale rek moom mii ngeen jàppale soxna na bu nawet nee na nga gën a jàppante ak ñoom te xam ne lii sa alal la ndax alali soxna may Maymuna la te yow yaay ciru soxna may Maymuna ci kër Sëñ Fàllu kon nag nee na ngeen jàppanteek moom nee na mi ngi lay ñaanal ak waaw ak soxna May Galas mi nga xam ne nag moom mooy jëwriñu liggéey bi moom la waxoon rek soxna Maya ma yar waaye Sëñ Fàllu daa waxoon ne day ciru soxna May moom laa ko jox bërki démb sëñ Abdou Karim dafay yónnee na soxna Bali bul wut baas baas yëpp maa koy def soxna may na ko bul wut muraaki lépp maa koy def dëbb indi ko mu ne kon de la sëñ Fallou waxoon agsi na waaye bañ demee ci soxna Awa fay daa wax ne kere bi ma jógee ndakaaru ñëw Touba sëñ Fallou daa jàpp guddi ga ma fi njëkk fanaan daa xëy mu woo alaaji baara na ko yóttal ma ko soxna may nee ko ab cërëma nee na bi ma jàkkaarloog moom li ma ko njëkk ñaan mooy ginnaaw kii mooy sama cër te doomi sëñ Touba la yàlla naa am doom juñ ko tuddee nee na kon yàlla nangu na ko kon nee mi ngi leen di ñaanal guddi gi rek yàlla na ci sëñ Tuubaa faj seen aajo yëpp ci barke Cheikhul Khadim ñu feeñalante nag par kenn kenn par kenn kenn ba yàlla dajale ñu ñun ñëpp ñu amandoog moom ñaari màggal sunu borom jële ko fi bi mu laata dem mu teg ñu si loxo ku tedd kii waaye réccu ko réccu wuñu luñ doon dugge si loxo soxna Bally soxna baale yëkkati nañu faale nañu am na fu mu ñu teg ku ñàkk xel tuuti sax sa am ñax-ñaxu xol waaye balay sa yàlla la fi yàlla bàyyi yëkkati gii nga ñu yëkkati ba ñëpp ku nekk ku yëkkatiwul ku ku ku ku euh, ku euh, euh, am ñàkk xel rek daa am loo xalaat suñu digganteek yow wala Mbàkke yow yal na fi yàlla bàyyi li ñu la yéene yegg seeguñ seek yow sunu yéene si yow balay sa yegg ci ñuy ñaan yàlla rekk yana la fi yàlla bàyyi gis nañu sa xool si ñun ñu di la sant di sant sa njaboot yépp nag di sant bépp sëtu sëñ Touba ndax képp ku ñu gis ñu ngi ñuy xoole Bally Mbacké soxna May gis nañ la ñu ngi lay sant yaa soxna maam euh, euh, soxna Asu Mbacké sunu ñëwee kenn amatul jàmm kenn amatul looy kii wax ji nag duma ko guddal parce que gan yaa ngiy ñëw waaye daal Mbàkke am na fuñ la teg de